ci yoon bi ni wax route nationale numéro un ni moo am na nit ñu bari yaakaar naa ni ñàkk nañ seen bakkan donc ñoom ci leen ñëwee ak sapeur pompier yi ak préfet ak gouverneur ñëpp ñëpp teew médecin yi waa kër docteur liñ mën lépp def nañ ko sapeur pompier yi léegi bi nu saytoo man dem naa ci morgue ba xool la fa nekk wàññi nanu fanweer nit ak juróom-ñeent yu ñàkk seen bakkan bi ma waxtaanee ak médecin yi ci kanamu commandant compagnie bi nee na ma am na fukki nit ñoo xam ne si seen gaañu gaañu métti na lool ak juróom-benn fukk yoo xam ne si seen gaañu gaañu moo gën a yées li xew nin ko mën a expliquer benn ñaari oto la yu mag yu naan bis am ay voyageur kii jóge côté Koungheul kii jóge côté Kaffrine ki jóge côté Koungheul bënam dafa toj mu daal di mu daal di jéng bi mu jéngee daal di fekki ki jógee côté Kaffrine ñaari oto yi daal di mbëkkante pneu yi toj yi nag am na benn jàngat bu nu def léegi ak euh, enquêteurs yi gis na ni ñeenti pneu oto yëpp dafa xaw a wàññeeku daal ba xaw a néew doole xam naa loolu daal dina bokk ci liy orienté ci enquête bi bii pour xam lan moo waral loolu leneen li ci des mooy ñaar ñi